fii nag ku dégg jataay bi ak gis jataay bi ñu demee xam ne ñu ngi fiy dundal xasida yi ci anam bu sell ci bëgg-bëggu sëriñ bi ci suba ba léegi ñu ngi fi di ko dundal ci dundin wu rafet mboolem jànkati xasida yi kayit gi ñu yor ci ren ñu tënkaloon boole xasida yi nga xam ne sàkk woon nañ ñu yëkkati ko ci bërëb bi ak yeneen xasida yoo xamante ne it murid yi ñu ko fi yëkkati yu wuuteeg yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati tañ mm, bàyyiwuñ ko taxuñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax léegi ñoo ngi sàkku mboolem ku kuy teewlu xam ni lu lu yemoog ay tay tay surentir jaalibatu maraaxib fatun fataax wasilatu rubo asma ahlu badrin ma fay taxul bitri ma daayixul fadaayil ak xasida yi nga xamante ni maanaam sëriñ bi koo tënk ci maddu ak xasida yi nga xamante ni da koo tënk ci yëpp dañ koy maas di ko jàng fii ci defar jàng ba noppi rek danañ ko saytu saytu sell ci anam yu rafet maanaam daal koy eh, jël lépp jébbal ko ñi nga xamante ni mooy waa xisbu ñu leeral ko ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi xel baax mboolem jànkati xasida yi ñu ngi ko dundal ci dund wu rafet fii nag dara manqué fi ndax lépp a ngi rafet jànkatu xasida yi ñu ngi koy dund dund bu rafet sëñ Bara Teen di magum jànkatu xasaayit moom mooy jàng noonu mboolem jànkatu xasida day ñëpp ñu ngi teewlu di rafetlu jotaay bu baax a baax ñoo ngi ñaan mboolem ko suñ borom dogal nga teew ci jotaay bi te ñu ñaan yàlla defal defal ñëpp jàmm ci barkeb Seexul Xaddim am nañ mbégte bu baax fii daal liggéey bi ñu fi liggéey daal ñoo gi ñaan mboolem ku ku ku ni teeraan tey teewlu jotaay bi nga ñaanal ñu lépp ñu dëppoo ci bëgg-bëggu sëriñ bi mboolem jànkatu xëdd yi daal ñu ngi fii seen dara manqué wut ñu ngi leen fi fekk di leen berndeel di leen toppatoo seen dara manqué fii nii fi bind bindkat yi nekk kon ku dégg sëriñ bi naan wahab liman u aw yaktubu xayral munaa yaa man atani kutubu kon jànkatu xëdda yi rajas ñi ngi fii ñi bind xëdda yi ñi ngi fi jàkkaarloo kon nii daal lañ tënkee jataay bi ñoo ngi ñaan mboolem ko suñ borom dogal nga ñëw ci bis bi balaa bi nga xam ne ñoo ngi koy dégg yàlla nañu ko suñ borom dàqal ci barkeb xasida yi Euh, ñoom ñu ay tawfeex ak xéewal ak mbégte yoo xamante ni mboolem fu waay nekk rek yalla na la fa fekk te defal la fa ay taw tawfeex te musal la ci mbas mi musal la ci balaa bi mu la ci pakk yi ak ndog yi barke borom Touba barke xeetu di Seexul Xadim yi ñu ñu di fi jàng ñu ngi rafetlu bu baax a baax ci ndigalul Serigne Youssou Diop Cheikh Hamsatou Mbackeem Serigne Souhaïbou ñu ñoom ñëpp ñu àndandoo tënku ci seen ndigal lan nekkee fii di saytu liggéey bi ci anam ñun ñu ko joxe lépp it ñu koy saytu ci saytu boo xamante ni daan ci ciy ñaan daal ñu dëppoo ci bëgg-bëgg sëriñ ba nit ñu ko joxe ñu di ko saytoo noonu lépp mën a eh, yéwén te rafet ñu mën leen ko jébbalaat ci jébbalin bu sell ñoo ngi ñaan képp ku fi teew daal yàlla faj tay aajo saahir ak baatin jàngkatu xët yëpp ñu ngi fi mboolem rajatkat yi ñëpp ngi fi duruskat yi ñëpp ngi fi ñu ngi koy jàng ci njàngin bu sell ci anam yu sell kon ñoo ngi taxawlu foofu tey ñaan sëriñ bi defal ñëpp jàmm te faj